Toujours dans votre actif du jour de ce lundi 4 mars 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai au rassemblement binga nga ni du front de résistance ni ngi amal ñu gis ci daal ay jàmmarloo yoo xamante ni amoon na ci diggante ñaari doomu ndey ñaari doomu pendanaar yi mooy ñi nga xamante top ci Khalifa Sall ak ñi nga Ousmane Sonko mu doon benn gâchis boo xamante ni yàq nañu seen rendez-vous bu njëkk nag opposition bi la woon ak ñi nga xamante ni mooy pouvoir léegi jamono ji opposition bi ak opposition bi la kon sénégalais yi ñoom ñoo war a xam ñiy jàkkaarloog ñoom doon wax ak ñoom dara du ci dëgg mooy ay échauffé yoo xamante ni dafa mettre en prise li nga xamante ni mooy ay partisans ñii di Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xamante ni ñooy partisans Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni mettre nañu fin samedi bii ñu génn benn rassemblement boo xamante ni dañ ko organisé woon jëmale ko ci front de résistance bi nga xamante ni benn structure la bu regroupé ay plusieurs entités yoo de ni ou milité wu jëm ci seeni lii nga xamante élection présidentielle avant lii nga xamante ni fin wu mandat président de la république Macky Sall le 2 avril mais liñ ci nemmeeku daal muy ay jàmmarloo ay sànnante xeer ay xeex ay xuloo ak saaga diggante ay xalifis ak ay sonko si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gâché nga rendez-vous en tout cas muy li nga xamante ni daal moom lañ doon wax askan bi ñii nga xamante ni dañu ànd ci opposition bi ànduñu dañoo lonkoo ku ci nekk sa intérêt personnel moo lay ñoral tey jii suñu demee ba gis ni que ay nitu Khalifa Sall ak nitu Sonko di sànnante ay xeer di rayante je crois que sénégalais yi ñoom ñoo war a poser waat question xam ne que ñoom fi ñu jëm ak opposition bi dara taxu ji muy ay dizaine de militants yoo xamante ni ay activistes lañu ñom ci seen bop ñoo joxante won rendez-vous ci li nga xamante moy terrain HLM Grand Yoff ginnaaw bi ñu wootee li nga xamante moy appel à la résistance fépp jëmale ko ci réclamer lepp lu jëm ci organisation élection présidentielle avant fin wu mandat ki nga xamante moy président de la République Macky Sall muy nekk en fonction mais luñ ci némé ko ay xéer yu ñuy sanni ñoo daal di interrompre li di manifestation ginnaw ginnaaw ay yuuxu bi mu jibé daal di perturber li di discours représentant yi nga xamante moy Khalifa Babacar Sall ak ay partisans li di opposant bi nga xamante mang ci kasso ba di Ousmane Sonko ginnaw biñu ñu escandé li nga xamante moy tour leader moment bi nga xamanteni ni la allocution qui nga xamanteni moy responsable Khalifa Sall doon def lu ci top ay xeer lañ doon sanni opposant ci ñaari camp ba nopi mu daldi entraîner ay coups de dispersion jaarle ko ci ay manifestations yi nga xamanteni ko pacifique li mo waral suñu demandé autorisation qu'elle du len ko may manifestation pacifique lañ ñuy wax ñom ci sen bop ñu organiser won manifestation bobu ñom ñu ci bokkon ñom ñoo doon reyante sen bir kon je crois que le préfet a bien raison d'interdire toutes ces demandes d'autorisation de manifestation manifestation ndagam nag ñi nek ci seen bir manifestation ñu and ànd bokkandoo ndo autorisation ne manifestation pacifique ñu jox leen ko ñom ñi sanante xeer di reyante seen bir je crois que y a plus de sécurité pour que ñuy autoriser li nga xamante moy manifestation kon nak journalistes yeen ñu toog ci plateau yi plus particulièrement Seigne Saliou Gueye c'est le droit de manifester kon nak préfet su gisé ni que ñi demandé seen manifestation ñom ñoy reyante seen bir waxtu ba nag na suñu gisé ñi nga xamante mom lañu la ñu bañ en tout cas muy li nga xamante da ragné won woon nañ ko ginnaw bi nga xamante ñom ci seen bop ñoo mettre en place regroupé le toll ci fukki candidat ak juróom-benn jëmale ko ci élection présidentielle ici, à ay divers mouvements yoo xamante ne tey mën nañ jàpp politique la ak société civile muy élection présidentielle yi nga xamante ne initialement dañ ko prévoir le 25 février bi nga xamante ne mu doon benn facto ñu reporte ko après que li nga xamante ne mooy président Macky Sall daal dinay abrogé benn décret convoqué lii di collège électoral bi jaarle ko ci veille ouverture li nga xamante mouille campagne électorale bi le 3 février ci discours bi nga xamante à la nation kii di chef de l'État. état moom ci boppam moo expliqué pourquoi pourquoi décision jaar le ko ci permettre lepp lo xamanteni pour indi li nga xamanteni moy lumière jëmale ko ci soupçon de corruption bi nga xamanteni dafa jëm ci ñaari juge yi nga xamanteni ñom ci sen bop ñoo procédé wu jëm ci contrôle li nga xamanteni moy valider ay parrainage ak li nga xamanteni moy ay dossier de candidature ba tey ci accusation yoy lañuy ñuy sukkandiku notamment jaar di porter li nga xamanteni moy parti démocratique sénégalais di PDS ñoom ci sen bopam ci benn dossier bo xamanteni de candidature la jëmale ko ci leader bi nga xamanteni moy Karim Meïssa Wade ñu rejeté ko ci raison bo xamanteni moy double nationalité sénégalaise Bonnopi nopi française muy doomu ki nga xamanteni ancien président de la république du Sénégal Abdoulaye Wade loolu nak daldi entraîner crise euh, politico-institutionnelle jarle ko ci ay précédents fi ci Sénégal muy le 15 février bi ñu ki conseil constitutionnel Daldi juger contraire jëmale ko ci constitution ak loi bi nga xamanteni adopter adopté nañ ko fofu ci assemblée nationale pour reporter li nga le 15 décembre 2024 muy élection présidentielle yi nga xamanteni le 25 février bataille tey ci décision bobu muy haute juridiction daldi révoquer li nga xamanteni moy décret candidations jaarle ko ci convocation bi nga xamanteni moy électeurs yi demandé won nañ ko autorités compétentes yi ñu organiser élection présidentielle ci ay meilleurs délais ci bir lool nak ginnaw lool la engagé wu ci ay lendemain jëm ci ay pleinement ay exécuté ben décision bo xamanteni ki di chef de l'État convoqué na le 26 ak 27 février ben dialogue national ñu usur ci ben date bi nga xamanteni moy 2 juin dal di koy proposé pour que képp kuy participant nga di tenir au premier tour ci scrutin yi nga xamanteni nar na fi am ba qui ci loolu ki di président Macky Sall dal di promettre le 28 février bi nga xamanteni ni muy ay recommandations émanant jaar la ko ci ay concertation yo xamanteni ni mën na dem ñu soumettre ko ki nga xamanteni moy conseil constitutionnel ci biir lool nak la manqué li nga xamanteni moy le lendemain pour réaffirmer li di décision dal di quitter li nga xamanteni moy fonction le 2 avril euh, bi nga xamanteni moy expiration li di mandat de cinq ans ci boppu réew Sénégal li am solo ba am solo dal moy li nga xamanteni moy mooy na foofa ci samedi té ñom ci seen bopp ñoom ñoo ko muy rassemblement bi nga xamanteni ay front ñoko ko jëmele ko ci résistance ginnaw élection yu ñu reporté ay sànnante xeer lañ ci gis diggante ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Khalifa Sall ak kii di Ousmane Sonko mu doon benn guerre de pierre boo xamante ni jamono ji comme ni ko Olof Ndiaye di waxe Youssou Ndour way na ñëpp Waly way na Youssou Ndour way na lépp Waly way na ñëpp Sidi Diop way na wayu ñëpp Ousmane Sonko xuloo na ñëpp Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko Khalifa Sall Ousmane Sonko Pape Djibril Fall Ousmane Sonko chef religieux Ousmane Sonko chef coutumier léegi Ousmane Sonko ak kan la ak waa Pastef ci seen bopp en tout ca lu doy waar a ngi nii nañu xool kan moo sikk ci biir. <laughs>